conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias mooy corriger journaliste bii di ay Diop Fall CORED ci communiqué bu mu génnee tey vendredi 10 mai ci lay naqarlu bu baax vidéo bu mu wax ni daanaka moo ngi wër réseau sociaux yi te mu jóge ci benn émission seen YouTube bii di Public SN TV nga xam ni ay Diop Fall moo ko moom CORED ni kàddu yooyu ay Diop Fall journaliste yëkkati ci vidéo boobu méngoowul dëppoowul ak règle yi nga xam ni ñoo tënk métier mi maanaam les exigences éthiques et déontologiques CORED nee na nag moo ngi naqarlu bu baax a baax doxalin yooyu Aïssatou Diop Fall di wax nga xam ni rafetul jékkul ci benn journaliste waxuma la ak responsable des média nee na lu nu mel day yàq deru journaliste bi entreprise de presse yi ak képp ku ci laale maanaam bépp acteur loolu moo tax muy fàttali article 19 bu code de la presse bi wax ni journaliste wala technicien des médias warul nangu benn yoon benn avantage wala lu ñu koy jox ba tax du respecté wala mu defee liggéeyam ni mu waree ak indépendance maanaam ci gàttal kenn waru koo ger ba tax mu bàyyi liggéeyam di ko defee neneen nu mu ko warta defee bu nu sukkandikoo nag ci seen communiqué bi CORED nee na jël na mbir mi au sérieux maanaam autosaisiru na ci mbir mi teyit dana ko yóbbul ca tirbinal des pairs ngir mu étudier cas bi ba xam yan dogal lañu ciy jël ak yan daan la ñuy teg ci kawam